danañ wax sart yi tax jullee wér dafa njëkkal wax bi islaami mu del nag ne wasapril xawrati awra day yaar awra ju ñu ñàngal ak joo xam ne ñàngaluñ ko awra ji ñàngal nag moom su ko mënee sàng te sangu ko rek julli ga du baax moom nee nañ su fàttee itam ba tax sangu ko du tax julli ga baax borom muxtasar moom daa waxoon ne su ko mënee te boole ca fàttaliku ko wane ne moom su ko fàtte woon julli ga baax na waaye dañuy wax ne wax ji gën a wóor daal mooy su amee lu mën a sàngi awra ja mu fàtte koo sàng nag julli ga du baax bu ko tëlee nag moom wàcc na ko moo tax mu teg ci in xadara ndeem mën na ko su ma ne sàng awra ji ñàng ji daal moom te sangu ko doon te fàttee tax julli ga du baax awra ja nga xam ne nag ñàngut dëgg la sax wares na koo sàng waaye ñàkk ga sàng du tee julli ga baax fu mu ko ñàkkee def nag te ñu ko cee digal baamu ci waxtu wa daañu la ko leeralal su mënee sàng awraam jooju donte sax dafa xam koo xam ne bu ne ko abal ma yére ma fa ko te julli dana ko abal kon loola war na ci moom mu dem àbb koo gee su ko àbbul rek defee mu neen rek julli ga yàqu ba tey bu fekkoon ne yére am sobe dong la am koyit day war mu sànki ko awra ja te julli su defee yaramu neen ndax ne soo yére ba daa sobowu rek julli nga yàqu sooy dañ koy araamal ci góor ba tey bu fekkoon ni yére yu sooy kese kese la am dañ koy wax ne ko jullee ko rek sàngi ko sa awra ndax ngant la su defoon yaramu neen nag ne day bañ a sol sooy mu araam nii koy julli nga yàqu su amee yére yoo xam ne du sooy sañes na ko sol waaye daa am sobe mu am na yére yoo xam ne amu sobe waaye day sooy dañ koo araamal yaar yooyu tase fa mu ne kon na sol sooy ba jullee ko bu yére bu sobewu taseeg yére sooy daal yére sooy ba laab moom la ñuy jullee bàyyi yére bu am sobe ndegam nag da nga ne awra day yaar awra bu ñàng boo xam ne ñàkk koo sàng te fekk mu mën ko julli ga day yàqu faw ñu baamu ko ak awra ju woyof nga xam ne moom sàng ga war na waaye du sart ca yooyu julli ga bu ko defut it julli ga dana wér mu lay teqalal nag yaari awra yi ba ñàng ak ba ñàngut dangaa miinoon nii wax naa jamono yi jaam amee jaam bu jigéen moog góor ñoo yam li awra xam ne seen awra mi ngi tàmbalee jumbax ba ci bëtiwoom waaye loola waxinu gàtt la woon rek ne buñ ko teqalee muy wax ne góor moom awraam ji ñàng nga xam ne koo ñàkk sàng mooy rek sawukaay bi ak la ko wër ak buntu suuf ba ak la ko wër loolu dong mooy la nga xamee ne mënu koo ñàkk sàng soo amee lu ko sàng te sàngi woo ko rek julleem yàqu ne moom yaari njëkkikaayam sax ci awra ji woyof ja la bokk bokkul ci awra ji ñàng ja bu ñëwee ci jamono yi jaam bu jigéen amee nag jaam bu jigéen ngay wax ne sawukaay ba ak bunt suuf ba ak la lay wër day awra ji ñàng ba noppi nag nga boole ca yaari njekkikaay ya bu doon góor yaari njekkikaay ya du bokk ca awra ji ñàng ja waaye bu dee ci jébéer jaam bu jigéen yaari njekkikaay ya daa bokk ci awra ji ñàng ja nga xam ne bu ca dara feeñee mbaa lépp feeñ te mën koo sàng rek julli ba du yàqu da koy baamu faw faw te bu doon góor nag moom bu njëkkaay doon feeñ it daañ ko wax ci kanam dañ koy digal rek baamu ci waxtu wa waaye bokkul ci awraam ju ñànk te daan wax naa jigéen joo xam ne gor la ci gàttal yaramu yépp awra la ba mu des kanam ga ak yaari cëng ya waaye nag boo koy teqale ba garaañeel awra ji ñàng nga xam ne bu ko mënee sàng ci sangu ko rek julli ga du baax da koy baam faaw faaw ak awra ju ñàngut di ci woyof nga xam ne moom war na sax mu sàng ko waaye bu ko sangut it dañ ko digal rek baamu ci waxtu wa kon na ngay wax ne jigéen yoo xam ne gor la awraam ji ñàng nga xam ne mënu koo ñàkk a sàng moo tàmbalee ci fa biir ba yem jàppaloog dënd ba fa biir ba yem wàcc nag ba ci bëti woom yi nga boole ci la tolloog loola ca gannaaw ga dagam na nga wax ne ci biir bi la dale jàpp jumbox bi wuti bëti woom yëpp la tolloog loola ca gannaaw itam loolu lépp ngi bokk ci awra ji ñàng ji léegi nag kamatul tàqale jigéen jay gor ak jay jaam kon ñépp ñoo bokkale fa seen awra tàmbalee ak fa mu yem awra ja ñàngul nag nga xam daa woyof mooy la tàmbale ci dënn ba wuti bopp ba ak la tolloog loola ci gannaaw wuti doq ga wuti bopp ba dënn bi jëm ca baat ba jëm ca kanam nga wuti bopp ba ak fa taw dënn ba ci gannaaw yépp jëm ca kaw loolu lépp bu ko sangutit wàcc na warugar waaye du tee julli ga baax ba tey itam jëmmi bëtiwoom bi la ca dale wàcc ba ca kaw ndëggu ya mi ngi bokk ci awra ju waaye fi ji nga xam ne ñàkk gaa sàng moom it du tee julli gaa baax dañ koy digal rek baamu ca waxtu wa nga leeral foofu ne jigéen ji ay bëtiwoomam bokkul ci awra ji ñàng ja awra ji ñàng ji dafa bàyyi ko ci fa biir ba yam jàppal dund ba wàcc nag ba agsi ci bëtiwoom yi yam fa te dugalaale wut bëtiwoom ya bëtiwoom ya day ànd wàcc wut dojoor ya ak kaw ndagu ya loolu lépp bokk ci awra ju woyof ja jigéen liñ ko wax ne ko awra la ci yow waaye nag ñàngut dañoo sib rek nga bañ koo sàng bu fekkee ne sàngut loola ba am na ci lum sàngut kon julli ga baax na waaye dafay waxtu way jeex daañu taamu mu baamu julli ga te sàng loolee mu sàngutoon bu dee ci sabar takkusaan dañ koy digal baamu ga ba ba takkusaan yi suuf di jot bu dee timis ak gee dañ koy digal baamu ga ba ba fajar di fenk bu doon julli suba dañ koy digal baamu ga ba bant bi fenk foo dégg rek nag baam ci waxtu rek yem ja xamal ne baamu ga ngëneel la julli gu njëkk ga baaxoon na te it waxtu wa jeexee jaratul baamu jàmb jigéen ñi laa waxoon ne la awraam ji ñàng mooy sawukaay baag la ko wër ak bul suuf baag la ko wër te nga boole waale ci njekkikaay ya loolu lépp daa bokk ci awraam ji ñàng waaye nag ab lupp moom lupp ba bokkul de awra ji ñàng ja kon jàmb jigéen yooyu jamono ba doon julli ab luppam am ca luy feeñ daañu ko digal baamu ci waxtu wa nde sax baamu ga du ko war faawu faawu di wéy ndax lupp ba bokkul ci awra ji ñàng ja góor it da nga ne woon sawkaay baag la ko wër ak buntu baag la ko wër képp mooy awraam ji ñàng ju mënta ñàkk mu sàng ko kon nag góor bu doon julli dara ci ay njekkikaayam di feeñ mbaa lépp njekkikaayee feeñ dañ koy digal rek baamu ci waxtu wa ndax loolee mu feeñal bokkul ci awraam ji ñàng ma nga bokk ci awra ja ñàngut gannaaw ba nga xamee nag awra ji ñàng fa mu tàmbalee ba fa mu yem jàppal ne nit bu yéetee moom dong doon si lëndëm la julliwul deful dara itam ñu sopp mu sàng awraam jooyee bañ a def yaram mu neen ndax rus yàlla rus malaaka yi ko yàlla booleel te hadis boo xam ne dañ tàggoog moom lu may ci bu nekkee ci wana wa di faj aajo ak jamono joteeg góor ak jigéen dañ wax nag ne ndegam moom julliwul deful dara te deful wéet moom rek muy góor mu jigéen mën nañoo yemoo ci bu ñu sàngee rek sawukaay baag bunt suuf ak lu leen wër mu daal doy foofu di jar ñu fay teqale góor ak jigéen ak gor ak jàmbu jigéen cet loolu lay sukkandikoo am na lu ñu wax ne bu ñu nee sopp nañ boo wéetee ci noonu nga sàng awra ja kenn ku nekk dañ lay delloo ci dañ la waxoon ne la sa awra fii la tàmbalee fii la yam waaye daal say boo jàpp wax ci gën a wóor mooy ndega moom ci ci wéet la bëgg sutura rek a tax ak am kersa ci yàlla ak malaaka yi moom bun suuf baag sawukaay baag la leen wër bu sàngee loolu rek baax na jamono yi jaam amee jaam bu jigéen boo xam ne am na doom akub sangam moo xam doom jàng fa moo xam doom ja néewu fa wala sax demoon na rek ba ëmbee ca moom donte ëmb wa daa yàqu dañ koy tudde ummu walad ummu walad nag sang ba ko moom du ko sañ a def nen nu may téye ko rek su génnee àdduna mu daal di gore su ko neexee it jekki-jekki goreel ko waaye daal du ko sañ a jaay du ko sañ a maye du ko sañ a liggéey loolu liggéey bu am solo liggéey bu woyof rek bu ko neexee itam joteeg moom ci sawukaay jege gim jege nag gor moo tax ñu sopp ci moom bu dee julli mu sàng mbooleem yaramam wépp ba mu des xarkanam baag teng ya ni ko gor su jigéen su mag di defee gone gu jigéen goo xam ne itam digal nañ ko julli sopp nañ ci moom bu dee julli mu solo ni nga xam ne moom la mag mu jigéen di solo mooy sàng yaram wépp ba mu des kanam gaag yaari teng ya bi mu nee umu walad mooy kooku dem bay bëgg a gore moo jigéen ju ndaw sopp nañ biñ dee julli ñu sàngoo ni mag mu jigéen di sàngoo suñ ko deful nag la ne julli ga baax na waaye sopp nañ bu waxtoo jeexut ñu dellu soluwaat nañ ko soppe woon te baamuwaat ci waxtu wa mu tekki nag góor mu jullee yére yu sooy wala mu julli wàllu bokk ci wurus ni ki ab jaaro wala ceen ak yu demee noonu sooy ak wurus yonante yi sallallahu alayhi wa sallam dane woon su borom da ko araamal ci góor yi xeetam wi daganal ko ci jigéen yi xeetam wi góor nag bu jullee kon sol sooy wala mu julli takk dara lu bokk ci wurus donte ab jaaro la julli ga baax na waaye dañu sopp mu baamu ko ci waxtu wa koo xam ne itam ba mu julli awraam ji njàng ja nga xamee ne waroon na koo sàng sàngu ko woon waaye rafle ko waraloon kooku julli ga baax na ndax rafle tax sàngutoon awraam laata waxtu wa jeex nag bu amee lu mën a sàngi awraam joojee daañu sopp ci moom mu baamu julli ga loolu nag wute naag la boroom muxtasar waxoon moom dane woon ku def yaramu neen ndax ñàkk lum sànge awraam gannaaw ba su amee yére itam lu mën a sàng awra ja du tax ñu sopp ci moom mu baamu waaye li wax nii nag lay sukkandikoo kooku itam daañu sopp ci moom bu waxtu wa jeexut mu sàng awra ja te baamu dañu waxoon ne awra day yaar awra bu ñàng ak awra bu ñàngut boo bëggee takk nag man nga ne rek bu dee góor moom awraam ji ñàng nga xam ne bu ko sangut te tey ko bu jullee julli ko du baax da koy baamu faaw faaw moo ko jullee teyam mooy rek buntu suuf bi ak sawukaay ba ak la leen wër lu bokkut ak loolu rek bokkul ci awraam ji ñàng njekkikaay yeeg lu jëm ci kaw ak li jëm ci suuf boo xasee weesu buntu suuf weeg buntu sowukaay baag la leen wër loolu lépp awra ju woyof la awra ju woyof mooy joo xam ne waral nañ ci moom mu sangu ko waaye bu ko sangutit te bu jullee mu baax awra jooju nga xam ne nag ñu koy jàpp ci woyof nga xam ne bu ko sangu tudd te julli ga baax te ci am loo xam ne bu ko ca feeñalee bañ koo sàng ñu sopp mu baamu julli ga ci waxtu wa góor nag jàppal ne moom ay njekkikaayam di feeñ rek mooy tax ñu digal ko baamu ci waxtu wa bu ko see sàng bunt suufu baag sawukaay baag la ko wër daal waaye téewul lépp njekkikaayam di feeñ ba am lu cay feeñ daal ñu sopp mu baamu ci waxtu wa waaye leneen lu mën di feeñal ci yaramam lu bokk tëg njekkikaay ya duñ ko digal baamu ci waxtu wa nga takk ne jamono ñuy teqale gor ak jaam jaam bu jigéen awraam ja ñàng nga xam ne mënu koo ñàkk sàng mooy buntu suuf ba ak sawukaay ba nga boole ca nag njekkikaay ya xam ne njekkikaay yi bu dee ci góor awra ju woyof la te bu dee ci jaam bu jigéen ci yooyu jamono ci awra ju diis ja ju ñàng ja lay bokk kon yooyu jamono jaam bu jigéen bu dee julli la mënta ñàkk a sàng xam ne su sangu julleen du baax mooy buntu suuf ba ak sawukaay ba ak la leen wër ak njekkikaay ya nag ca la boo xasee wees loolu rek lu bokkut ak moom awra ju woyof la wares na ko sàng waaye ñàkk ngaa sàng du tee julli ngaa baax moom nag la muy feeñoo ci awra ju woyof joojee bañ ko ne baamul mooy yupp yooyu jamono jaam bu jigéen bu dee julli ay luppam di feeñ mbaa dara ci ay luppam di feeñ daañu ko digal mu baamu ci waxtu wa waaye nag leneen lu mën di feeñal ci awra ju woyof joojee lu bokkute lépp ya dee su ko digal baamu lu may nag mu nekk umm walla bi nga weesu woon léegi ne woon dañoo sopp ci moom muy soloo ni gor su jigéen su mag di soloo ndax moom daa dem ba jege ak ngor ñu ne woon tam bu fekkee solowul noona di li ko baax na waaye sopp nañ mu baamu ca waxtu wa kooku de moom rek moom ngay ber àtteem bañ ko yemaleeg àtteeb jaam bu jigéen ca yooyu jamono yëmewuñ ci wet yëpp yëpp jamono yi nga xam ne nag amul càqale gor ak jaam mën ngaa gàttal rek ne jigéen jëm man di doon awraam jëm ñàng nga xam ne bu ko sangut te amoon na lum ko sànge bu julee itam du baax mukk mukk mooy la dale ci fa biir ba yam jàppaloog dënd ba wàcc nag te bañ a ambaale bëti woom yi te wàcc ba ci lupp yi te bañ a ambaale bëti woom yi loolu mooy bu dee ci kanamam bu dee ci gannaaw ga it mooy la tolloog loola mooy fa tolloog biir ba ca gannaaw ga wàcc ba ci lupp yi te bañ a àgg ca bëti woom ya loolu kon xam nga ak jàppandal lool la bi nee jigéen yaramam yépp day awra ba mu des kanam nga ak ñaari ceng ya da ngay wax ne awraam ji ñàng nga xam ne mënu koo ñàkk a sàng bu ko sàngul te amoon na lu mu ko sànge rek ci li ko yàqu mooy la dale ca fa biir ba yam jàppalu dënd ba wàcc nag ci lupp yi te nga bañ caa boole bëtiwoom ya la tolloog loolu ci gannaaw itam mooy fa tolloog biir ba ci gannaaw ga wàcc moom itam ba ci suuf te ba ñu ambale ba tiwoom yi loolu rek mooy li nga xamee ne su ko jigéen mënee sàng te sangu ko julli ko du baax mukk mukk lu bokk teg loolu muy la tàmbali ci dënd ba wuti bopp ba moo xam ci kanam la ak la tolloo moom ci gannaaw ak di tàmbalee ci baaraam yi ba ambale ba tiwoom yi loolu lépp mi ngi bokk ci awra ja nga xam ne daa waras ñàngut waras na ko sàng waaye su fekkee ni sangu ko itam dañu sopp rek mu baamu ci waxtu waaye du tee julli ga baaxoon na loolu kon ak jàppandal lool la ndax jigéen bu doon julli kon dënn bay feeñ wala baat ba wala la tool dënn ba ci gannaaw ga wala bopp ba wala tànk yi ba sax bu ba tiwam ya doon feeñ ndax bët yooyu mi ngi bokk ci awra ji woyof ji loolu lépp julli ga baax na dañuy sopp rek mu baamu ko ci waxtu wa awra boo ko dee seet nag dañ koy teqale ndax lay awra ci bu dee julli moo xam góor la moo xam jigéen la bokkut ak la ñu wax naa mooy awra mu war koo sàng ba keneen dañ koo gis loolu nag lay bëgg a teqale la mu wax ne ba noppi mooy góor ak jigéen kenn ku ci nekk lan mooy awraam ji ñàng ak ji ñangut ci bu dee julli mu bëgg a wax nag bu dee ci nit gis moroomum nitam lam ca sañ a xool ca moroomum nitam ak lam ca suñ ta xool loolay bëgg a teqale bu dee nag nit la war a sàng ba moroomum nitam dañ koo gis mën ngaa gàttal ne ñaar rekk fi nekk góor ak jigéen kenn ku ci ne nag ka lay gis te mu araam ngeen sëy du yem ak ka lay gis te araam ngeen sëy ba tey kenn ku ci ne moromam di ko gis ni ki góor di gis góor mbaa jigéen di gis jigéen lu ci nekk am na àtte boppam man ngaa jikki góor ne góor daal lan war a sàng ba moroomam góoram ne moom du ko gis yéesuwut nga tàmbalee jumbax ba ca bëtiwoom bu la wóoree ne góor rekk lay gis foofee jigéen nekku fa boo xasee sàng nga tàmbalee jumbax ba ci bëtiwoom rek lu bokk sa loola mën nga koo bañ a sàng ba tey it jigéen joo xam ne ab araamanteem la moom góor gi nekk fa ak moroomum góoram nekk fa ñooyamoo bu sàngee rek moom góor gi la tàmbali jumbaxam ba ca bitiwoomam doy na sëkk ndax jigéen joojee nga xam ne dañoo araamante sañ naa gis ca góor ga lu bokkutal rek la tàmbalee jumbax ba ca batiwoom araamante mooy yoon mayewut ñuy sëy benn jege ci askan mën na koo waral bokk nàmp mën na koo waral ak goromaale itam mën na koo waral góor nag kon bu nekkee jigéen joo xam ne araamante nañu war naa sàng la tàmbalee jumbax rek ba ca batiwoom lu bokk tam loolu rek jigéen jooju nga xam ne xëy na day yaayam mbaa muy rakkam mbaa muy magam mën na koo gis ci moom góor gi nga xam ne góor bu toogee ki yaayam mbaa mu toog ak doom bu jigéenam ak képp koo xam ne rek araam na ko ci takk du tax mu sañ a feeñal dara ci li tàmbalee jumbo xam ba ci bëtiwoomam kon góor na moytu yaayam nekk fa wala rakam jigéen mbaa magam mu jigéen muy feeñal dara ci ay luppam mbaa dara lu bokk ci nga tàmbalee jumbax jëm ca bëtiwoon ya bu xasee sàng loolu rek nag jigéen joojee nga xam ne araamante nañu mën naa xool la des ca yaramu góor ga tàmbalee jumbax ba jëm ci dënd ba ba ca bopp ba ak la tolloog loolee ca gannaaw mën naa xool itam la tàmbale ca bëtiwoom ya jëm ci suuf la góor ga sañ a xool nag ci jigéen joojee mu araamanteel mooy baat ba ca kanam ak ca gannaaw ñu koy tudde doq ak kanam gaag bopp ba ak nag loxo yeeg tànk yi jàppal ne kon yow góor gi jigéen ja nga xam ne araam na la cig sëy man ngaa xool baat baag doq ga kanam gaag bopp ba loxo yaag tànk ya waaye nag sañu laa xool leneen ca moom bu doon sa doom bu jigéen it wala muy sa mag wala muy sa rakk itam kat doo sañ a xool dënn ba wala ween ya wala biir ba wala lupp ya moom daal lee ñu wax rek nga sañ a xool yem ca te it nag duñu wax ne ñaar ñu jege nañu jege goo xam ne kii bu gisee lii ca kee du ci am bànneex baa yooyu dañuy seet rek la ñu nu digal nu war koo def seet la ñu aaye nu war koo bàyyi waaye duñ ko takk ci amatuñ bànneex ci xool gi mbaa nangam ak nangam góor nag bu nekkee foo xam ne jigéen ju mu mën a séyal ci yoon mën na koo gis day sàng yaramam ba mu des baatam ak mboqam ak kanamam ak boppam ak loxo ya ak tànk ya nga xam ne jigéen joo xam ne mën naa see góor gi du mën a xool dënnub góor ga wàcc jëm ci suuf wala fa toolu dënn ba ci gannaaw wàcc jëm suuf kon góor bu nekkee foo xam ne jigéen ju ko araamut mën na ko faa fekk ab dënnam bu ca daray feeñ jëm suuf ba ci bëtiwoom yi ci gannaaw ga it noona ak wet yi mën naa bàyyi nag baatam ak doqam ak boppam ak kanamam ak ay loxoom ak i tànkam moom mën na caa bañ a sàng dara boo ñëwee ci jigéen nga ne jigéen moom bu nekkee moroomum jigéenam rek te ñu di ay jullit nga tàmbalee jumbax ba ci weti moom rek la mënta ñàkk a sàng lu bokk teg loolu rek mën na koo bañ a sàng waaye nag bu nekkee jigéen joo xam ne day yéefar daa war a mel ni rek bu nekkoon nag jaambur bu góor daal di daal di war a sàng lépp yaramam ba mu des kanam gaag téng ya ndax dañuy bañ jigéen joojee di ab yéefar bu gisee yaramu jigéen ji di jullit dem di ko nettali yéefar ya man ngaa takk ne it jigéen bu dee mook borom këram rek moom kenn ku ne ci ñoom ñaar mën naa gis lépp ka ca des bu dee jigéen ak góor gu mu araamanteel nag mel ne baayam wala rakkam ju góor mbaa magam ju góor mbaa ñu mel noonu nga xam ne kon mën naa bañ a sang baat ba ak doq ga ak kanam ga ak bopp ba ak loxo ya ak tànk ya waaye nag lu bokkut ak loola war na koo sang ndax waxoon nañ léegi ne góor googee sañ ko xool ab dënnam wala biiram jëm si ci bëtiwoom yi bu jigéen doon génn nag wala mu toog foo xam ne jaambur bu góor mën na ko faa fekk foofu lay war a sànge lépp yaramam ba mu des kanam nga ak téng ya kanam nga ak téng ya moom du awra wax ji gën a wóor ci yoonu al imaamu malik ak sax yeneeni boroomi xam-xam yu mag a mag yu yaato yaatu ci àdduna bi dañuy jàpp ni jigéen ji kanamam du awra ay téngam du awra mën na ko bañ a sàng ndegam ragalul genn góor am ci fitna ndax taaram góor gu ne itam mën naa gis xar kanam mu jigéen doojee nga xam ne ay jaambur lañu mën na ñëw sëy mën naa xool kanam nga ak téng ya ndegam juglu ca ak bànneexu te it ragalu ca fitna bu dee xool ga da caa jublu bànneexu nag du ko sañ bu ci ragalee fitna itam du ko sañ am na nag ay boroomi xam-xam yu féete ci wàllu màkkaak wet googu ñoom dañuy wax ne jigéen daa war a sàng kanamam googu ba jàmbur bu góor du ko gis ndax kanam gi ca la taar bay feeñe waaye daal leen wax rek moom la waa Maalik ak ñu bare bari jàpp ci boroom xam-xam yi te mën nañu sukkandiku ca loola da doon leeral ne góor moom bu dee mook moroomum góoram rek wala sax jigéen joo xam ne araamante nañu mënuñoo sëy moom góor ga la mu war a sàng mooy rek la tàmbalee jumbax ba ca bëtiwoom mënu koo ñàkk sàng lu bokk te loola nag mën na koo bañ a sàng jaam bu jigéen it ci jamono yi amee teqale gor ak jaam jaam bu jigéen moom boo tegee fee julli mu des rek la war a sàng ba keneen bañ koo gis ci gàttal mooy la tàmbalee rek jumbax ba ca bëtiwoom jarul nga naa bu ko góor dee gis mbaa bu ko jigéen dee gis mbaa kum araamantel di ko gis mbaa kum araamanteelul lépp yoo ci yemoo moom loolu ay gàtt gàtt ba mooy li ñu waxoon léegi ne jigéen di nekk gor ca ba ñuy teqale gor ak jaam bu nekkee jigéen rek ne moom moo xam gor la moom jigéen joojee nekk moom wala jaam la waaye daal nay julit bu xasee nekk julit rek jigéen a jigéen daal tey di ay julit moom ku ci ne bu xasee sàng te tàmbalee sa jumbax sa bëtiwoom rek diggante boobu doy na sëkk ku ci ne mën naa xool la ca des ca moroom ma bu fa jigéen yi yéefar nekkee nag jigéen ja nekk jullit day sàng lépp yaramam ba mu des kanam gaag teng ya lam ca tegoon wa maha rajulin ajnabiyin xayrul wajhi wal kaffayni jigéen ji bu nekkee jaambur bu góor wala foo xam ne jaambur bu góor mën na ko faa fekk mbaa muy génn kon war naa sàng lépp yaramam ba mu des kanam gaag yaari teng ya nin ko leerale woon léegi bu nee nangam awra la ci góor mbaa ci jigéen am na ci loo xam ne day nekk awra ci bu dee julli ak bu julliwut am ci loo xam ne nag dana am teqale ci ba mu dee julli ak ba mu julliwut la mu ca tegoon ne wa maa mahramin xayrul wajhi wal atraafi mooy lañu waxoon ne jigéen ji bu fekkee ne góor gam nekkal mbaa ngay bëgg a ñëw ab araamanteem la mel ne baayam wala magam ju góor a ngi demee noonu mën naa bañ a muur boppam ak kanamam ak doqam ak baatam ak loxo ya ak tànk ya te nag lu bokkute loola moom na ko muur na ko sàng baat baag doq ga daal ak kanam gaat bopp ba ak loxo ya ak tànk ya moom la araamanteem bu góor boobee sañ a gis kon nag lu bokkute loola war na koo sàng moom jigéen ja faaw rek li ñuy may jigéen mu gis ko ci jaambur bu góor duñ may jaambur bu góor mu gis ko ci jaambur bu jigéen ndax li nga xam ni moom la góor sañ a gis ci jigéen jëm mëntu séel jigéen moom mën na koo gis ci góor ga nga xamee ne mënuñoo sëy man mii nga xam ne góor laa ci misaal jigéen ji nga xam ne tey sama rakk mbaa muy sama mag laa sañ a gis ca moom mooy rek baat baag doq ga bopp baag kanam ga ak loxo yaag tànk ya te loolu nag jigéen ji nga xamee ne maa ngi moom bokkuñu dara dara dara sañ na koo gis ci man góor gi jigéen ju ne sañ naa gis ci góor gam bokkulu dara baat baag doq gaag bopp baag kanam gaag loxo yaag tànk ya te nag góor gi nga xamee ni moom jigéen ji jàmbur la ci moom mën nañoo sëy suñ ko xool lu may rek kanam gaag tënk ya ci kaw teqale biñ ko teqale woon léegi la góor sañ a gis ci góor ne moom te mooy lu bokkut ak la tàmbalee jumbax ba ci bëti woom jigéen mën na koo gis ci góor ga nga xam ne moom la araamanteel mel ne jigéen mën naa gis ci baayam wala magam ju góor mbaa rakkam ju góor ak ñu mel noonu lépp lu bëgg a xool ci lu bokkut ak diggante jumbax ak batiwoom suñu te gis na dara ci la tàmbalee jumbax ba ci batiwoom nit nga xamee ne góor sañ te gis ci moroomum góoram dara ci li tàmbalee jumbax ba ca batiwoom nga seetlu ne li ñu wax lépp mooy àtteeb xool rek ak bët mu des nag àtteeb laal ci yaram wa takk-takk bi foofu moom mooy bu fekkee ne ñoom xas nañ araamante lu ñu ne kee sañ na koo xool ci kee ba tey loolee mën na koo laal ci buñ ci misaal yow góor gi buñ nee la sama ju jigéen ji mbaa sa rakk ju jigéen ji mën ngaa xool baat ba ak doq ga ak bopp baag kanam gaag loxo yaag tànk ya loolee ba tey mën nga koo laal ndegam laal nga jubluwoo ca ak bànneexu jigéen bi ne ko góor gi nga araamanteel mën ngaa xool lépp lu bokkut ak la tàmbalee jumba xam ba ci ba teewoomam lam sañ te xool rek tàmbalee jumba xam ba ci ba teewoom rek moom la dul mën a laal waaye lépp loo xam ne am na sañ-sañu xool ko ci moom fekk ñu araamante mën na koo laal tam bu fekkee laal ga jublu ca ak bànneexu bu ñu dee ay jaambur nag lañu nekkee sañ na koo xool ca moroom ma du tax mu sañ koo laal niki buñ nee la jigéen joo xam ne mën ngeen a sëy mën ngaa xool kanam nga ak téng ya du tax nag nga sañ a laal dara ci kanam nga mbaa dara ci téng ya kon takk takk boobu defe naa yomb naa jàpp mooy bu ñu nee sañ ngaa xool nangam ci nit kii su ca boolee ngeen di araamante mën leen a sëy loolee nga sañ a xool ca moom mën nga koo laal boole ca ndegam laal ga jubluwoo ca ak bànneexu waaye nag bu ñu nee kii sañ naa xool ci kee lee ak lee waaye ay jàmbur lañu nag mën nañoo sëy ci yoon kon xool ga ca la ñuy sañ a yam waaye nag loolee ñu ko may mu xool ko duñ ko may mu laal ko góor sib nañu muy julli bàyyi ay mbaggam mbaa ak wetam muy feeñ te fekk na amoon na lu mu ko mën a sànge dëgg la loolu bokkul ci awram waaye buñ sañoon bu dee julli mu sàng ay mbaggam ak ay wetam ndax rafetal colin wa ba dee itam di julli di wokk ay yéreem mbaa mu wokk lafu mbubbam la bu dee boroom kawar yu guddi yi muy lem kawar ga te julli ga rekk a tax loola sib nañ ko bu fekkee da koo defoon nag te julli ga taxut ba mu julli mu far ko bàyyi noona dara nekku ca